mais tey ji nag ñu ngi ngent Touba ngent kër alaaj Seex Ndooy tey ji nag mu def teraanga gu rëy bii waaye Seex sa sa sa sa diggante wala secret bi am sa diggante ak le ministre ba Diattara lan la parce que loolu dafa jaaxal Cees waay de Cees ku ci nekk da ngay wax lan la lan la lan la mais comme ñun xamuñu ko te tey mama laa jël nag exclusivité pour nga wax sa diggante ak ministre Yankhoba Diattara lan la non xam ah. wax naan sama diggante jatara bu hmm. jaaxul ah. jaaxal te parce que ah. xamoo bi Cheikh Ndoye bi nekk université dëgg la dëgg la jatara sa doon hmm. jatara suma xarit la mu sa doon hmm. suma référence la mu sa doon dëgg la te amoon nañ am ñàkkoon a bokk vision ci politique. dëgg la dëgg la dëgg la mm. moo mosoon a doon benn benn ñàkk réewu suñu ak mm. Yankoba mm. Diattara kon dañ bokk coalition Benno Bokk dafa ñibbi Paris la loolu dafa delluwaat ci ay loxo magam dëgg la Yankoba Diattara dëgg la fàtte dama mos a def benn commentaire su Facebook moom Diattara mu jël ma en inbox dama xamal ni kilifa ga dëgg la responsable ga nekkatoo xale soo gisee mbir moo war a wax. Hmm. loolu tax na nga def loolu bu hmm. hmm. ma la gisati nga def mu jël la. rakkoo ma. magoo ko te mu dëgg. la léegi. Euh, remaniement bi léegi gisante ko dëgg la dëgg la yàlla koy ñu darle darle euh, jamono ji ak chantier yi ko dénk ñu yàlla mu am ci ndam lu kawe njortam dëgg la dëgg la ñu ko mhm. ci suñu ñàkk bopp dëgg la accompagner population mhm. ci gàmmu dëgg la lañu nekk moom loolu moo waral kon daal ànd bi daal yàlla na ko yàlla yàggal yàlla dool leen a gën a boole te musal leen ci seytaane te may leen nag ay ndaw ngeen fi ngeen toll pour liggéey pour Thiès kese mhm. yàlla leen ci yàlla defal ndam ay ndami ndam ci barke Seydina Mouhamed ci barke Serigne Saliou sa yaakaaru tey ak ëllëg li may wax daal li mu li mhm. la kon nag leer na mi ngi noonu kon nag exclusivité